mbokk internet yi ñu ngi leen di dalal ci biir tey nag dañoo ñëw ak yéen ci benn dossier buy concerné li nga xam ni moom mooy ñàkkum ndox ndox nag xam ngeen ni ci àdduna moom mooy li nga xam ni moom moo gën a important ndax boo ko amul doo mën a dund convenablement fa li nga xam ne nag moom mooy Parcelles Assainies foofu population yi dañoo daal di sonn torop li leen sonal mooy ñàkkum ndox gu metti duñu gis ndox guddi duñu gis ndox bëccëg boo leen gisee dajaloo bi ngeen xam ni ñoom dañoo taxaw foofu ngir am li nga xam ni moom mooy ndox même bu dee benn siwo ñu daal koy yóbbu fële nga xam ne moom mooy seen kër jamono ji nga xam ne nag jamono crise la ñu nekk coronavirus ñëpp di xeex li nga xam ne moom mooy feebar bi fële ca Parcelles Assainies ñoom amuñu sax ndox bu ñu naan bay raxas seeni loxo loolu nag nekk benn situation bu doy waar boo xam ne xew na fa loolu moo tax ñu ñëwoon fii nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies xoolal leen population bi ngir ñu jooy li nga xam ne moom moo leen metti jëmale ko ci ñàkkum ndox bi nga xam ne metti na torop ci ñoom rawatina si jamono ji nga xam ne jamonoy weeru koor la. fii mooy unité di sonn nañu sonn nañu torop ak képp ku mel ne ñun parce que dañuy xëy duñu am ndox ça fait plus de 15 jours robine toqul sax bay xelli sonn nañu ak fii dëkk bi toll fii coronavirus bi toll cas communautaire yi di taw kenn xamul fu muy jóge dañuy dankaloo pour am ndox ñu ngi ñaan nag bu fekkente ne lii dina jote ba ci nopp autorité mu dimbali ñu ñun waa Parcelles sonn nañu torop ci ndox taluñu dara dañuy ran ay citerne te ndox yi xamuñu fu muy jóge ak ni ñuy dajaloowee di tànkaloo pour am ndox ñi ngi ñaan wallu képp koo xam ne nii rek yaa ngi ñuy déglu te mën ci dara ñi ngi lay ñaan kenn sarax ñu rek ngir yàlla ñu am ndox. ah ñun de lenn rek lañu ñu sonn fii am ñu ndox bu ndox jotee dañu sonn ba bëgg a dee gis nga xale yi sa taalagu ñu añ ndax ndox dañu wër wër wër lu ndox ñëwee jafe rek interdit moo ci ëpp interdit ñun duñu am dara dara dara dara ci ndox. sonn nañu lool sonn nañu lool wax deug yalla yena ngi def jàmbaar di liggéey ci liggéey way tam ñun tam sonn nañu lool wax deug yalla waaw. ah ñakum ndox bi day metti na parce que buy ñu nee mi ngi ci dëkk bi ba léegi kenn mënatul am ndox bu neex tay ni instant ñi ngi ni dañuy may ndox deux mois mi ngi ni amul fi parcelle bi amul ben ndox ñi ngi ni dañuy dañuy wër di ñaanatu ndox dañuy ñu ne raxasu leen ba set. kon tey bu amul ndox nu ñuy mën ba set kolon ndox yi ki moo ñuy may borom kër gi ni ñaar at mu ñu tok di ñi may ndox amuñu feyam te bu ko neexon té mi ah man dé instant ni sama kër la yore wu ma may ndox mais daf daf ko def ngir yalla po pompe la jaayuñu ko saraxuñu ko daf ñu ko may ngir xol bu sedd guy te munon te munon né ne ah man dé instant du ma def ngir yalla mais daf ko def ngir yalla té borom kër gi ku bax la ku yaru la kër gi tey koñ bi fi ñëpp xam baaxaayam si maye ndox bu muy maye ndox bi kon ñun tey amuñu amuñu benn fayam kon tey lu ñuy ñaan tey su gouvernement mu dumbale ñun parcelle fii mu may mu tijji ñu robinet ñu mun a am ndox mun a raxas suñu loxo yi parce que feebar yu dëgg nga fii feebar yu bëri na fi bañ na fi parcelle mi ngi fii am na ay cas kon tey nu ñuy ne ñuy ne balaa ñuy ne sangul dafa dafa war a fekk ñu joxe ndox bu ñu bu ñu di sangoo ba pare kon waa ak raxasu kon tey ko amul tey nu ñu mënee raxasoo duñ ko mën. kon tey ñoom ñoo ñu war a jàppale instant ñi ngi nii dund bu ñu wax dañuy joxe fii instant ñi kenn nekkul di liggéey fii nii te kenn gisul benn dund du saawu du dara kon ñoom lan la ñu bëgg a téye fii ñiit yi kon kon nañu bàyyi ñiit yi dem liggéey. ni mu lu mu wax rek am na lu mu bàyyi parce que waxuma la ñàkk ndox mais danga dul nelaw di nga régler sa portable 2 heures 3 heures 4 heures du matin yu kenn xamul boo xëyee war a dem doxi sa liggéey. bëccëg bi yëpp sa kanam gi kenn xam lan lay ndróol saa fa boo wéetee yaa ngi nelaw te du tax sax nga am ndox te yàgg bu fekkoon ne dañ ko def sa 2 jours 3 ñu dafa am lu ñuy defar waaye nag dafa yag, ay 2 semaines a ngi nii amuñu ndox heure ay 8 heures ci suba nag ku fi ñëw ba fekk ñu fii ni ñuy amee ndox mi nga xam ne fee bu fi amee du ñun ñoo fa def mais dañ ñoo seetaan te du tere dañuy am facture facture yi dañ koy fay te yow doo am ndox loolu laajte nañ explication ba sonn amuñ ci benn réponse loolu sax méttiwuñu mais feebar fi mu nekk nii mënoo ñàkk génn ne da ngay wuti ay paanu ndox ak dajaloo bi ak loolu yëpp mënul ñàkk léegi na ñun sonn nañ trop ku ñu mën a dimbali daal nga jox ñu ndax dangay wax saa waxee ñu naa la waa unité 10 dafa dafa kawe dafa nangam mais terewul dañuy am facture léegi soit nañu éliminer facture yi wala boog ñu ñu jox ndox wala bu ñu joxee tey ndox bu subaa boog ñu bañ a jox ndox bu ko defee ñu mën a xam ni ñuy defee suñu précaution mën a root denc mais 15 jours mu fóot moom ñemewuñ ko ñun duñu fóot ndox mi ñuy toggee dañ koy denc ba kenn xamul wala ñu ay ndoxu citerne la ñuy toggee te yooyu yëpp ay feebar la yoo xamante nii xamuñ nuñ ko fuñ koy euh, waxee ñu ngi ñaan daal wëllu comme ni ko ñëpp waxee rek kuñ ci mën a dimbal daal nga dimbale ñu. ndax lii ñu nekkee dafa yàgg dafa yàgg depuis 2014 bi kii bi amee ba tey mooy euh, ndox bi problème mu ndox bi amoon fële ba kër ma maama sër ba tey ñoo ngi ci ndox boobu ba léegi amu fi nii la ñuy dundee sonn nañu ba ci kanamu yàlla amuñu nag fuñ ko jooy ndax boo waxee tamit dañuy woo télé yi woo rajo yi bu ëllëgee ñaari fan ñett mu coupé xool ak ñun guddi dañuy bàyyi suñu nelaw yi di root guddi ba guddi la ñuy root guddi suñu si rootee yàqal ñu suñu nelaw bu ñu dox bi di toq ba fajar luñ ci am jël yenn saay lay ñëw ye bu mën na toog deux semaines nii la ñu jàppoo deux semaines dara nag dara dara dara du ñëw bu ñu toogee une semaine pepp pepp ñëw arrêté waat ñii daal lañ nekkee xamuñu ñàkkum ndox bi lan la ba lan mooy problème bi lan mooy problème bi suñu ci mënee dimbali ndax ndox mooy nit ni ñun ñun bu ñu nee seet leen tey jii bu ñu nee tey jii yegg dugg leen seen biir kër ngeen toog ci tey jii foog naa ne ndox moo war a jiitu ndax ndox jigéen bu ko amul génn ndox rek la ñu war a njëkkee ba pare émergence bi ñuy wax émergence bi anamu ñun ñoo ngi nii ñoo raw ay kaw kaw ndax dëkkoon ndax boo nee dëkk yi ci kaw gi sax ñu ne la ñun problème bi amuñu ko ñun nii rek lañ nekkee nee naa la depuis 2014 unité 7 nag raw ci nag unité 7 moom moo ci raw ci kaw ba ci suuf kër yi ci kaw ba ci fii ci suuf fi côté bii ñu ñaan wax moo tane waaye dara léegi pepp pepp dara amuñu ko ñu ngi leen di ñaan ngeen lii ngeen génneel ñu ko ngeen wax a jàppaleel ñu ci lu ñu mën ndax ñàkkum ndox bi metti na metti na ba ci kanamu yàlla ñuy sant nag grand laay mii la laay caane meng mii nga xam ne wax dëgg fa yàlla jullit piiray kii ndax xam naa ne lii bu fi amuloon ñaari kër yi ñu taxaw di root chaque jour ci teen te nii la ko ibbee chaque jour Nous la chaque jour unité 10 unité 7 unité 9 unité 12 ñun une man koo taxaw fii yor suñu di dañ koy Nous sommes di dara dara dara dara dara wala am du di leen ñaan lii nag ngeen tegal ñu ko mu yegg ba ci njiitu réew mi sonn nañu Marème fay jigéen nga te xam nga ni jigéen ndox ndox rek moo mën a yor jaboot ndox bu amul dara amul ñu ngi ngeen jàppale ñu ba ci kanamu yàlla. voilà loolu moo nekkoon xam ne ñoo ngi ko jëlale woon fële nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies unité 10 ko ci ñàkkum ndox bu metti bi nga xam ne am na ci parcelle te daanaka nekkul Parcelles Assainies unité 10 rek unité yëpp presque dañoo daal di ñàkk ndox ñoom nag ñi ngi ñi ngi wax ni li nga xam ne moom mooy situation bi yàgg na ay at a ngi nii ñoom mënuñu fexe ba am ndox normalement bu ñu daal di ubbee benn fan dinañ tëj lu mat 15 jours door a ubbiwaat loolu nag nekk situation bu metti ñoom ñi ngi interpellé nga xam ne moom mooy maire Parcelles Assainies dañuy interpeller directement ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi nekk biir Parcelles Assainies ñu daal di leen jàppale ci li nga xam ne moom mooy ñàkkum ndox bi continuer leen di topp limametti point com ngeen information yi ndax information bi limametti point com la cloche de notification bu leen ko fàtte moo leen di mën a permettre ngeen mën xibaar yi foo leen mënti toll ñu leen di jox rendez-vous